woon fan yi si benn projet loi boo xam moo nekk loi habilitation muy jox ndigal président de la république akub sañ-sañ jox ko lu toll si 1000 milliards ngir mu war koo jël jëfandikoo ko si biiru ñetti weer génn 69 milliards yoo xamante ni daf ko war a jënd dund pour dimbale ko askan wi nga xam ñoo gën a néew doole ci ci Sénégal loolu buñ ko ko joxee député yi nag am na sañ-sañ ñu ñu ne si département Mbacké muy député opposition ak pouvoir bi yëpp ñu def waxtaan daje def ay proposition biñ si waxtaanee ba pare ñu man ma woo Mansour Faye proposé ko li nga xam moom la ñu déggoo mu ne bu ngeen demee ci préfet ak maire lépp loo xamante ni juboo ngeen si loolu ñu ànd si doxale ko noonu ndax ku ne xam ne Touba population bi mën na 1 million de 500 te li nga xam mooy ñëw fii parce nangam la kon jàpp naa ne bi nga xamante noonu la mën a sukkandiku pour li wax ñu moom la koy séddalee kon population bi du am. ñaareel bi ku ne xam na ne bourse secret familial bi nga xamante si leen bëggoon a sukkandiku bourse bi baaxul ndax dañuy gis chef laas boo xamante ne wala kenn koo xamante léegi di quartier dafa bind boppam bind rakkam bind ñaari jabaram bind ay doomam kon jàpp naa bu ñu ko séddale ñooñu nit ñi duñ am ñu ne léegi nañu xool ban anam la ñu ko séddale mooy dañuy feseen taxul benn comité boo xam ne ci quartier lay doon yoo xamante ni ñoom ñëpp tey dañu ñu mën a bokk si muy illiliko yi muy député yi muy représentant ñeneen ñi au conseil yëpp bokk ci comité yooyu noonu ñu jéem a xool nan la ñuy def ba nga xamante ni donte kenn ku nekk danga nga a benn saako ceeb benn euh, diw benn saabu lu man di doon pour askan wi mën a jot si loolu ñu bañ ko def doublon bañ ko sàcc aussi ndax dafa na am loo xamante ni wax naa leen ko ndax du ñu ko bàyyee ak chef de bu buñ ko defee tamit askan duñ ci jot préfet d'accord na suñu proposition doon ko adopté incha allah valide ko yónnee kaw mooy xam ni département Mbacké Touba particulièrement population bi fi nekk ànd na député ñoom ñëpp pour que li nga xamante noonu lañ proposé ñu d'accord ci loolu am benn saaku ñu jox la ko ku ci a ñaar saaku ñu jox la ko mais mu àgg ci biir askan wi askan wi nga xamante ne moo tax mu ñu génn ci maanaam îles yi nga xamante ñoo bokk ci département yi muy représentant peuple buñ ci bokk chef bokk bu ci maanaam jox ñi nga xamante ne tey ñoo ko mérito te war moo taxoon daje ñu ngi ko rafetlu ba insha Allah leen sant tamit te xam ne fas yéene nañu ci taxaw ci ndax askan rek moo tax ñu jóg je vous remercie